yaram bu daw contane et puis biñu amé li quoi et puis organisation bi jaar ci loxo baxaw mu woon ñun ñep man ma ngi joggé ni ci Youssou Ndour man ak Youssou Ndour sax ñoo waroon ànd normalement mais dafa mën ay gan moo tax indiwuma ko moo tax donc di di contane ci bés bi vraiment di ñaanal ñi fi nek aussi yalla jëlé len fi quoi ñu génn ba topato seen mbir seen mbiru bopp yàlla na yàlla na ko yàlla def ko yàlla na yàlla jëlee fii bi ma duggee nag vraiment dama kontaan parce que euh, xam nga nga def benn way boo xam ne tu l'as pas fait exprès muy Nobel nga dugg ñëpp way ko euh, muy góor ñi jigéen ñi même les les les gardiens les gardiennes et tout ça ça m'a beaucoup ému ça xam nga donc euh, di di di am mbégte vraiment teew fi tey di leen ñaanal surtout surtout leen ñaanal ñu génn fi ci jàmm ak salaam dem doxi seen soxla quoi vraiment tey kontaan naa trop et puis kontaan ci yéen aussi ngeen ma gis leen fi tey presse bi yëpp yéen ngeen ñëw sama yaram daw na kontaan naa lool